maa ngi nuyu ñëpp dama bëgg ba fu mu toll ci pare bi xëy na tey bu na dégg lii bu ne xam na wala nag xam na wala bëy waaw ñu dem dama bëgg ngeen ci refrain bi xëy na mag yi dégg ñu tey xëy na tey bu dégg ñu waaw ah ah doo jooy askan wi parce que wala kii xam na wala bëri nit la du taw rek bu bëggoon lancé di wax dara yow damay masawu le peuple sénégalais c'est très important parce que nag vraiment da ngay ñun dañuy génn ci les gens viennent nous dire non Karim massa may non ñun yéen la ñuy masawu yéen le peuple sénégalais ndax au man ci kaso bi ma nekkoon mburu bi boulangerie bi defar mburu ci kaso bi la nekk dinaa jot sama mburu mais xam naa ne am na ci gars yoo xam ne ñu mën a jot seen mburu parce que ñi ñaa ngi manifester am na ñoo xam ne man damay dem infirmerie rek faju parce que ñi ñaa ngi manifester depuis depuis 2021 ba tey Sénégal nekkul ci jàmm ñu ci fitna boo xam ne benn nit rek moo ñu ko teg à chaque fois dama koy wax a ko waxaat répétition lay nekk Sénégal benn problème la am muy il faut avoir le courage de le dire sonal moo fitnaal moo ñu damm tas Macky Sall dimbali mu bàyyi pouvoir bi mu dem te yàlla tax mu xool nit ñi xool boppam xool Sénégal ñun li ñu liggéey démb ba tey benn nit war ko yàq ma wax ak généraux yi nekk ci gendarmerie armée sénégalaise la police ak institution yooyu mu jàpp mel ni ku yor jàmmu tambaatee di jàpp ka lekkat rek ñu siggi xam ni Macky Sall day dem bàyyi leen fii ma waxaat ko encore li ñu wax nii répétition la waxoon nañ ko dañ koy répété waat rek te bi dafa taxaw kenn mënu ko freiner kenn mënu ko téye il bu gëm ni mën na xeexal peuple la xamoon naa ni gàcce la ci jëf kon ñu gën a taxaw gën a farlu waxu mu tembere tembe amul taxaw dañuy taxaw tembe mu teg affaire ci yoon une date boo xam ne na ko teg léegi balaa le deux parce que le deux moom mënu fi taxaw mënu fi traîner le deux moom à partir de muy jël bagage am bi mucc ci pare mu koy jël yëpp sinon dañ dem génne ko pare bi kaddu gi honorable député président Birame Souleye Diop. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. yéen détenu politique. yéen des ci kaso bi te dañu seetaan. dañoo wax ni ku tëj benn nit tëj nga njabootam yëpp ku tëj góor borom kër tëj nga jabaram ku tëj jigéen tëj nga yaay tëj nga baay tëj nga doom 1800 personnes ci kaso bi mooy tëj nga 1800 familles ci mbedd mi loolu yàlla te li ci ëpp ci ñoom lan lañ leen di tëjee Bassirou Diomaye Faye la clochardisation de la justice ñu ñaf ko ci kaso bi Fadilou Keïta j'espère qu'ils ñu ñaf ko ci kaso bi Falla Fleur maintien rek ñu ñaf ko ci kaso bi Serigne Saliou Gueye dama foog ni ñu ñaf ko ci kaso bi Assane Seck jàpp naa ni ñu ñaf ko ci kaso bi mais dëkk boo xam ne bi saa yu sax xalaat manifestation wala bokk ci manifestation gis ci photo ay 17 18 millions de Sénégalais 17 millions yëpp boobu seen téléphone fekk Ousmane Sonko ñu xam ne kii sa téléphone am na léegi justice lu muy wax du ma la yóbbu correctionnel dama la instruction léegi dama bëgg procureur wax ñu dama bëgg juge d'instruction wax ñu keneen ak keneen yow yow yow dara dossier Dakar ndax ils ont prêté serment ils ont prêté nañu bàyyi ñi ci kaso bi nañu bàyyi ñi ci kaso bi nañu koor fi ngeen asalaamaaleykum maa ngi leen di jottali président Ousmane maa ngi leen di nuyowu fay gorong nee na ay détenu politique nee na lawul ngir yee mu nekk foofu xalaatam yépp xol kaw la ko wante na xam ni muy Macky Sall échoué doomu aadama ñuy ñaan di adressé wu au candidat yoo xam ni conseil constitutionnel retenir may wax leneen mooy le monument pour les détenus Ousmane su génnee président Diomaye Faye génne monument emblématique dinañ ko ériger pour les détenus politiques vous avez versé votre pays Macky a tué précieux hommes, yar leen jox leen les valeurs qu'on doit donner à ses enfants. Macky Sall est en train de piétiner. Heureusement que vous avez dit non. Heureusement que nous disons non. Non, non à Macky, non à Macky. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ndofène Diouf seen famille ñu ngi fii. trente minutes lañu woon dix huit lañ ci libéré Macky Sall waa yoo xam ne bëgg nga bàyyi leen bàyyi tous les yi waaw. Karim